boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bes fu ñu def cloche bi foo leen mën a ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo aouzu billahi min alcheytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu taala wa sallam wa baraka ala nabiyina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qadimihi wa sallama tasliman mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñi ngi jiital ci nuyoo boobu nag ak ziyaara bi cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo fi toog jotaayu cheikhul Khadim di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te mooy ko wér ak njabootu cheikhul Khadim gi yépp dellusiwaat nañu ak yéen ci jotaayu xam-xam yi nga xam ne ñu ngi koy waajale bis bu màgg bii ñu jëm muy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar di bis bi nga xam ne ci la cheikhul Khadim santaane woon ne képp koo xam ne mbégam sa mbég la. bu agsee na ko santale boroomam kon muy bisub sant yàlla boo xam ne dañ koy santale sëriñ bi boroomam ñu ngi ciy ndokkeel nag mbooleem umma islami bi yëpp waaye di ci mbokkeel particulièrement yoonu murit euh, ak mbooleem taalibe Cheikhul Khadim bi yëpp di ñaan lépp luñ ci def rek yal nañu ko yàlla nangul euh, jataay suñu jataayu tey bii nag ñu fas yéene cee waxtaane tomb bu am solo muy loolu ma junj sax muy màggal gi màggal Tuuba ak solo si mu am moom lañ fas yéene waxtaane war koo séq ak nag koo xam ne bu ñu ko xool bu ñu gisee eh, jë kanamam rek dana wone ne ku ku ku méngoo ak tomb boobu la ndax borom xam-xam la jàngalekat la gëstukat la rawatina ci jaari jaari sëriñ bi ak histoire yoonu murit muy sëriñ Cheikhouna Mbacké sëriñ Cheikhouna Bousso Cumbuleen sëriñ Cheikhouna Bousso Cumbuleen moomu moom lañ fas yéenee séqal jataay bi tey kon ñu bàyyi ko rek mu nuyoo bu ko defee ñu tàbbali tàbbi ci biir waxtaan wi sëriñ Cheikhouna asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. sëriñ Abdullahi ñu ngi lay delloo nuyoo <coughs> di nuyu képp koo xam ne mi ngi dégg sunu kàddu walla mu jàkkaarloo ak sunu jëmm ak fu mu mën a nekk ci àdduna bi di ko wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di jiital ci nuyoo bi nag. ki nga xam ne moom la sunu boroom teg ci sunu kanam mu ne ci bopp njabootu cheikhul xadim radiallahu anhu di cheikh mahamadul muntaqa di ko ziar di ñaan sunu boroom mu gën ko fee yàggal dolli ko it ak wér ba taxawaay yu am solo yi ak naal yi ak yéene yi nga xam ne am na ko yépp mu mottali ko ba àggale ko fu kawe njortam te lépp ñu ànd ko ak moom di ziare yéen njabootu cheikhul xadim gépp ci weeru tedd wi nga xam ne tàbbi nañ ko te mooy safarul xayr di ñaan sunu borom subhanahu wa taala euh, mu defal ñu tawfiq ba ni ñu koy séentoo ak li ñu ci yéene lépp rek dëppoog ni ko boroom dëgge bëggee ba ñu làq ci ngërëmam amiin jërëjëf Serigne naa ci nuyoo bu am solo bi kon xam naa dégg nga tomb bi ñu war a waxtaane te mooy màggal tuuba ak solo si mu am mel ne kon màggal gi rek lañ bëgg a waxtaane tey ngir waxtaane tom boobu nag xëy na dana laaj ay laaj yu bari waaye laaj bi ñuy njëkka a laaj rek suñu seexu naa mooy baatub màggal baat bi fu mu fu mu fu mu fu mu bàyyi ko ci sëriñ bi la bàyyi ko wala ay nit ñoo ko tuddee noonu rek baat bi jërëjëf sëñ Abdullahi xam nga baatu màggal moom baatu wolof la nga xam ne moo tollook baat bi ñuy wax ta'zim ci arab màggal te ku ne xam na ni lislaam moom yàgg naa am ay bis yoo xam ne daf koy màggal niñ ko niñ ko mën a waxee ci wolof yàgg na am ay jamono yoo xam ne daf koy warmaal yàgg na am ay barab yoo xam ne it daf koy warmaal ak di ko màggal wa man yuazim wa man yuazim loolu ci alquran day wane ne kon ku màggal xurumatillah sha'airallah yooyu yëpp ay euh, barab ak jamono Euh, ak ay ay ay ay xew-xew yoo xam ne day am kon baat bi moom buñ ne baatu màggal euh, xëy na noonu lañ ko mën a waxee ci wolof waaye nag euh, du ma ne baat bi noonu la bàyyi ko ci sëriñ bi waaye jëmmi muxtawa bi moom madmun bi maanaam continue baat bi moom ndigalul sëriñ Tuuba la radiallahu taala anhu ndax bu ñu nee màggal dafa am bis boo xam ne ni mu baaxoo am ci lislaam ñuy màggal gis nga weeru koor dañ ko jox war ma di ko màggal naka noonu boo génnee ci biir weeru koor sax am na bis yoo xam ne dañ leen joxaat warma di leen ci màggal mel ne laylatul xadri boo génnee weeru koor yowmul jumuati laylatul jumaa bu dee barab yi am na ay amaakin yoo xam ne euh, dañ leen di warmaal di leen màggal euh, naka noonu anbiya yi ak mursaluna yi boo xoolee euh, am nañ ay xew-xew yoo xam ne bis yam xewe woon ci ñoom ñu màggal la yow ma ashura gis la bu bari ay ngëneel yonente bi alayhi salaatu salaam rotal ci ay ahadis ci ay ngëneelam euh, ba nga xam ne dañuy sopp ku ko woor te buñ ca demee euh, mën naa ni lu war a mat fukk ci ay yonent kenn ku nekk am na xew-xew bu ci xewoon boo xam ne boo xew woon boo xam ne ci yow mu ashura la xewe woon loolu lépp dolli bis boobu ngëneel euh, nun nag bu ñu nee màggal buñ ko waxee rek liñ ci jublu dëgg-dëgg bis bi nga xam ne cheikhul xadim radiallahu taala anhu daf ko doon màggal boroomam di ko ci sant ba noppi nag sàkku ci képp koo xam ne duma ne ak njabootam waaye képp koo xam ne mbégam sa mbéga su dikkatee nga santale ko ci sa boroom jant googu ñuy sant sunu boroom ci bis boobu yi nag euh, yañ cay def maanaam ya ñuy sante sunu boroom loola la ñuy tudde màggal ndax euh, bis ba ko jiitu ak ba ko jiituwaat ak ba ca topp moom màggal mm-hmm. ku ne xam na ne daañu leen wuutale ci ay jëf kon bis bi ci boppam am na dayo buñ ko jox boo xam ne loolu moo indi baatu màggal waaye sëriñ bi moom sant boroomam mm-hmm. la doon wax mm-hmm. te moom la digaloon ña nga xam ne nettali nañ te jële ci moom euh, ñu njëkk ña nga xam ne euh, ci bi muy doog a am wala boog ña nga xam ne ñoom am na màggal yoo xam ne ci ñoom la sëriñ bi jaare leen digal yi ñoom baatub sant lañ jëfandikoo ne moom la leen sëriñ bi waxoon ne bu dikkatee na ngeen ma ko def li seen borom ok jërëjëf jërëjëf sëñ Cheikhouna kon mel na ne solos màggal moom maanaam jëmmi màggal jëf ji màggal gi loolu moom moxtawaa bi moom sëñ bi da ko santaane moom moo ko santaane amaa jëmmi tur weeg yooyu nag xëy na am na ñu ne sax ci moom la bàyyi ko am ñoo xam ne nee nañu xëy na euh, sukkur la ko waaye alaa kulli xaan li ci jublu moom mooy sant sant sant gum doon sant boroomam di sàkku itam ñi nga xam ne ay mbégam seen mbég mbégam la loolu ñu sant la ko boroomam loolu kon kii nañ dégg nañ ko bu baax a baax ci ci ci ci ci ni ko ni nga ko leerale waaye nag mu doon bis boo xam ne fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar la dëppool ni ko waxee xarajtu yow ma sabti samin achar li xidmatil muxtaari fii chehri safar mu bëggoon a xam date boobu sëriñ bi moom moo ko tànnal boppam ak ak datu fan la lu ñuy màggal dem gi la ñuy màggal génn gi Mbàkke Baari walla bi euh, ndigal li rotee ci moom bi mu amee yéene ji foofu bëggoon naa nga leeral ñu fi tuuti. jërëjëf sëñ Abdoulahi laaj bu am solo boo xam ne man sawar naa ci lool. Hmm. Euh, <coughs> bala ma cee sax baatu màggal bi nga waxoon léegi te ne am nañu ne ci sëñ bi la bàyyi ko loolu sax moom du doon du ma yéem man ci mu bàyyi ko sëñ bi tey man danaa ko nangu ndax euh, mawlidu nabi sallallahu alayhi wa sallam mi mm-hmm. ci sëriñ bi di gis nga ne baatu màggal la doon jëfandikoo foofu mm-hmm. taadimuhu bi sunnati mm-hmm. ak fa ma yuadim mawlida kon bisam bii nag bu fekkente ne baatu màggal bi ci moom la bàyyi ko it maanaam day doon lu ma nangu man bu baax a baax a baax waaw dëgguma la sax waaye foofu dañu wax ne Cheikh Abdou Lahad doon na ko nettali ci ay nettaleem wane ne mag ñi bu njëkk dañ ko daan tuddee tabaski waat moo leen wax ne tabaski waat bu leen ko ko wooye biddaala dañ ne da leen ko wax màggal alhamdulilah rabbil alamin loolu kon ab fàttale la bu am am solo mm-hmm. waaw fàttale la bu am am léegi màggal gi nag ban date exacte la ñuy màggal mm-hmm. ndax génnuk sëriñ bi la mm-hmm. euh, wala ñibbisi gi la fukki fan ak juróom-ñett yi la walla ñeenti fan yi la ci niñ koy waxee muy bisu génn bee bisu yéene bi mhm. loolu maa ngi jàpp ne li am solo dëgg-dëgg mhm. mooy mag ñi nga xam ne dañoo nettali fekke ba noppi wax wax lim ba mhm. euh, ñaari mbir daa am mën nañoo werante wala mën nañoo wuute ak dégg aw gisiin ci génn bi bisu fukki fan ak juróom-ñett la wala fukki fan wala ñeenti fan ya maanaam ci ñeenti rabian safar wala saamina achar waaye jimmi màggal gi moom ñi doon nettali moom te nga xam ne ci sëriñ bi lañ jëlee wuute wuñ ci ne fukki fan ak juróom-ñett yi moom la sëriñ bi doon màggal loolu wuute wuñ ci kon ñaar ñaari mbir yu xaw a wuute la ab sew-sew la daal ndax bu ñu xoolee date bi nga xam ne mooy datu màggal xam naa doogu ci ne at sàngam la dana xaw a jafe ndax ñetti wax rod na ci yu bàyyi ko ci ñetti kilifa te kenn ku ci nekk it di koo xam ne ku ñu téye ay waxam la te eh, ñetti dat yooyu benn bu ci nekk juuyoo na ak moroomam waaye nag kenn dogguwul ci ne dat bi mooy bi njëkk a màggal loolu am solo la ci xam nga sëñ Mawlaay Buso radiallahu anhu eh, dafa nettali te moom ci sëriñ bi la nekkoon di doomi sëriñ Bàkki Buso radiallahu anhu nee na at mi nga xam ne moo tolloo ak vingt 1922 moom at moomu date boobu la joxe ne day biñ demee ba fukki fan ak juróom-ñett jub si yàlla dogal na magam sëñ muudu bu soo indil cheikhul xadim radiallahu anhu addiya ab gàtt muy aw bëy bi mu ko indee sëñ mulaay nee na ci man la ko jaarale maa ko egge sëriñ bi sëriñ bi ne ma yóbbul ma ko ca marché ba nga soppil ma ko am xar te nga téyel ma ko nee ma dem soppi ko am xar téyel ko ko bañ àgg ci bisub fukki fan ak juróom-ñett ya sëñ Moulay noonu la nettali te sëñ Moulay ba léegi image baa ngi fi maanaam vidéo baa ngi fi nee na bi ñu àggee ci fukki fan ak juróom-ñett yi nag sëriñ bi defarloo ko ko séddale ko ñetti xaaj jox ko waa kër gi ak la muy àndal ne ko nag bis bii kat day bis boo xam ne lépp lu ma am ci sama borom ci alal mawaahib alladuniya wala alfuyudaat ci bis bii laa ko amee lépp loo xam ne yi nit am ngeen ko ci xeeti xéewal ak teranga ci bis bii ngeen ko amee kon nag ma bëgg bu dikkatee ngeen di ma ci santale seen borom loola moom bisub fukki fan ak juróom ñett la ci weeru safar si mu Ka it indi na cent 1920 nettalib sëñ Habibu radiallahu anhum ajmain moom nee na fàttaliku na ci njaareem ñu màggal ci loo xam ne jiitu na dat yooyu waaye sëñ mu laay ci ab nettaleem néewul at mii mooy at mi njëkk a màggal moom waxut loolu Musaa Ka it néewut mi njëkk a màggal moom fàttaliku na ñu màggal lu jiitu la kon day mel ne at mu nekk su ndigal li di bàyyeekoo ci sëriñ bi di dem ci taalibe yi kamuy jaar ci moom mën naa jàpp dat booba waaye fekk na màggaloon nañ ne lu jiitu loola waaye li am solo daal mooy sëriñ bi moom moo ko doon defal boppam jàpp nañ daal 1918 moom fekk na sëriñ bi tàmbulee màggal joxe ndigal ci ñuy màggal donte nag ñetti ñetti ñetti ñetti dat yooyu kenn ku nekk ndax suñ bàll Faali Jeng it gis nga mm-hmm. am na ndigal loo xam ne ci moom la jaare woon dem ci taalibe yi mhm. nga xam ne kon sëriñ bi kon jamono ju nekk at mu at mu nekk rek màggal gu ñëw mhm. suy joxe ndigal ak ka nga xam ne ca moom la koy jaarale mhm. kooka bu fekkente ne moom mi ngi doog a yéeg mbir mi mën naa jàpp ne at mii mooy at mi nga xam ne ci la njëkk a màggal loolu it day doon lu mat a bàyyi xel kenn ku nekk ñu nangul ko taarix ba nga xam ne moom la téye jëli ndigal ci sëriñ bi nangul ko it anam nga nga xam ne moom la sëriñ bi doon màggale Euh, ak lam ko ci doon defloo kon daal li ma jàpp rek mooy li sëñ moo nettali moom nga xam ne moo yóbbu gàtt bi ca marché ba soppi am xar maanaam bëy wi soppi ko am xar moo ko defar moo ko jox soxna ya ko doon liggéey ak la mu àndal sëriñ bi wax ko ca lii mu ko ca wax kon jàpp naa ni moom ak doonte wuute nañ ca dat bi waaye wuute wuñ ci ne mu fukki fan ak juróom-ñett moom moom la sëriñ bi doon màggal. jërëjëf sëñ Cheikhouna yaakaar naa loolu leer na kon wuute wuñ ci fukki fan ak juróom-ñett yi ne mm. euh, moom la ñuy màggal te it moom la sëñ bi wax ne moom la génn jëm ci tukki bi ci li mu bind waaye itam anticiper la nga ma sax question bu bëggoon laaj far leeralal nga ma ko mooy ñan la ko sëñ bi njëkk a sant xam wér na ne sëñ bi moom moo doon moo ko doon def ci ci nekkam mhm. moo doon def ci nekkam waaye ñi mu ko doon ñi mu ko doon sant ñu koy ñu ko koy taxaw ci njabootam far nga ma leeralaale lool tudd nga ci sëriñ Moulay Bousso tudd nga ma sëriñ Balla Fally Dieng mhm. ah, tudd nga euh, euh, sa sa nett sëñ mu sëñ Moussa Ka bi ak sëñ Abibu kon loolu loolu jàpp naa ne lu leer la kon mën nañoo jàpp ne fukki fan ak juróom-ñett yi moom amul benn wuute xëy na nag at mu ne am na ñu mu daan sant ci njabootam ngir ñu taxawul ko euh, cant googu waaye nag li ma bëgg ñu ñëw nag dëgg-dëgg nag ci cant ki li ñuy màggal nag mooy sant yàlla nag sant cant googu nag ban wàccuwaay la am ci lislaam lu tax sëriñ bi tànn ko ndax màgg lu yéeme da ci am ndax sëñ bi ci tukki la doon dem ci natt yoo xamante ni moom la doon dëgmal ci ci dem gi mu di ko màggal màggalu dellu si gi ndax ñu baree bari ñun victoire la ñuy lañu lañu la ñuy célébrer moom la ñuy feete bu ñu demee ci benn benn liggéey ba ba liggéey ba jeex bañ am ci ndam ñun moom la ñuy feete sëñ bi nag moom njëlbeenu liggéey bi njëlbeen tàmbali liggéey bi moom moom lay moom la doon moom la moom lay màggallu waaw di ko na tudde ko nag cant cant googu nag laa bëgg ñu taxaw ci nag sukkuru cant googu ban wàcc waay la ci lislaam ak lu tax sëriñ bi nag tànn tànn sukkuru cant sëñ sant day lu am solo ci lislaam daanaka mën nañ ni mooy lépp ndax suñu borom ci boppam ab santkat la mm-hmm. moom yàlla subhaanahu wa taala bëggit ku koy sant sun maam aadama mi nga xam ne moom na sunu borom njëkk a bind ci anam gam ko bindee wax nañ ni tënn jëmm ji te defagu ci moom ruugi bi mu defee ci moom ruugi it dafa tàmbulee ci yuur gi di wàcc fu mu jaar foofu dund ba agsi ci bët yi mu xippi agsi ci bakkan yi mu tisli bi mu tislee daal di sant bi mu sante sunu borom subhanahu wa taala xamal ko ne looloo tax ñu bind la bi mu xippee nag wax nañu dafa seen ay sëtam sunu borom daf ko wan ñu war a ñëw ginnaawam ñëpp ba ba saa taxaw mu gis doomu aadama yi wuute lool ci seeni bind ñii seeni dayoo maanaam ñii gàtt ñi am taxawaay ñi xees ñi ñuul ñi am yaram ñi xiibon ñi wér ñi wéradi ñi am ñi ñàkk wax nañ ni sunu maam aadama ci yërmandeem dafa laaj foofu sunu borom ne ko xëlla sawayta baynahum xanaa mënoo leen woon a yamale rek ñu nekk benn benn catégorie yam ci lépp sunu borom daf koo toon ne ko uhibbu an ushkar dama bëgg ñu di ma sant ki amut ki am war naa sant yàlla ngir bu xoolee ci ki amut ki wér war naa sant yàlla ngir bu xoolee ci ki wéru ba mu ba mu jeex mu ne ko uhibbu an ushkar loolu muy benn ñu gis ne it yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa gis nga euh, xadis boobu sayyidatna aïcha radiallahu anha bi mu fanaanee taxawal ay ibaadaat ci digganteem ak boromam ba ay tànkam di neewi borom burda nettali na ko ñeneen ak ñeneen nettali nañ ko boo demee ci kutubu siira yi da nga ko ci fekk bi ko sunu ndey aïcha radiallahu anha ne xanaa doon noppal sa bopp ndax li nga wax ne moom la sa boroom wax sa digganteeg moom lépp daf ko ne afala akunu abdan shakuran loolu lépp nag bu ma ko suñ boroom defalee te defalu ma ko dara kon nag war na maa mën a doon jaam boo xam ne na damay sant yàlla euh, sant nag doon loo xam ne suñu boroom daf ko digle ci alxuraan ne bu ngeen ko defee ma dolli leen faskuruni azkurkum washkuru li wala takfuruni ñu ñu war koy sant te bañ a te bañ a weddi njëkk la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid muy tomb bu am solo ci lislaam maanaam sant nga xam ne ki koy def jamono bu nekk day gis ndolleem nga xam ne euh, sunu maam aadama joxe na ci misaal yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam joxe na ci misaal xam naa dañuy bañ a guddal ci loolu ngir suñ diggante ak cheikhul ci la ñu bëgg a dikk sëriñ tuubaa nag radiallahu anhu du caagi ne màggal tuubaa rek la doon sante boromam wala ci la dig la ñu di ko santale boromam dafa bari ay mawaqif yoo xam ne sant rek la fa doon def ci jamono yoo xam ne xel dana daj leneen lu dul mhm. sant ci alxaybatul baxariya rek gis nga bi mu nekkee ci tukkib géej gi nettaleem boobu nga xam ne ki ko diggoon biteeli misk yi dig ko keneen te joxu leen ko kooko di xuloog moom sëriñ bi toog di dégg xuloo bi moom fi saasa dafa daal di sant yàlla ngir li dal kii kat ba muy xuloog moom mooy sukkandiku woon ci digg bi mhm. man na ginnaaw yàlla dimbali na ma ba sukkandikuwuma ci woon mhm. kon loolu war naa cee sant yàlla daal di liggéey xasida goo xam ne xasida shukriya la ko tuddee ala innani uzni ala xayri mun'imin wala ashtaki lil xalqi min faqdi an'umi mhm. bari nag ay xasaayit yoo xam ne da koo taalif ci wàllu sant di ci sant boromam dem nag ba gis ne moom may yi ko yàlla defal moom sëriñ bi moo waxanteeg boroomam ci mbindum boppam wax yàlla ne ko may yi nga ma may cant ga ci yàlla man lott naa ci man rek hmm. maanaam ma sant la cant ga ci yell kooku lott naa ci hibaatu ko lii ayat shukur ya fil kunhi laka alhamdu yaa fardan taalita an shibhi bi mu demee ba gis ne moom nag sant boroomam lott na ci cant ga ci yàlla ci la sàkkoon nag ci képp koo xam ne ci moom nga aju képp koo xam ne mbégam sa mbéga saa boo xamee ne nag bis bii ñëwati na nga sant ko ci yàlla subhanahu wa taala li tax nag mu tànn bisub dem bi di ko sant tànn bisub dikk hmm. day mel ne sëriñ bi moom ci bisub demam mhm. fekk na mu xam lay xew lépp mhm. sunu borom xamal na ko lii xew ci tukki bi lam doon jaayante ak boromam njëgga mi ngi teew mhm. léegi li ci des rek mooy li mu war a def mu def ko te yóbbu la mu war a yóbbu moo tax bis bi nga xamee nag ci la am li mu am mooy bis bi nga xam ne ci la doon génn moo tax mu sant leen njaboot gi mu sa mu sàkku ci njaboot gi ñu santale ko boromam mu tànn bis boobu di ko sante ndax ku ne xam na ne bi muy dem dénkaan yi doon dénkaane dénkaan yi sëriñ bi doon dénkaane ak ni mu bàyyee woon njaboot gi kanamam leer na nañ ñi li mu war a liggéey leer na nañ ñi ci moom li des rek mooy am na ay jaarwaay yoo xam ne jaaragu ca te war na caa jaar waaye moom li ko suñ borom war a fayee moom mi ngi nii di tege mhm. léegi nag li xew digganteem ak boromam ginnaaw ci bis boobu mënoon génn la xewe mhm. moo tax mu tànn bis boobu sant ko ndax du ceegi ne bi mu demee ba ñëw la jot njëg gi mhm. bi muy dem fekk na jaayante naa ak boromam ba la suñu boroom jëndanteek moom jaar na mu muy muy bisub fukki fan ak juróom-ñett bi nga xam ne ci la doon sant doon sàkkule mag ñi ñu santle ko ci mhm. kon day mel ne soo dee xool li ëpp ci nit ñi bu ñuy wut dañuy wut ba am doog a sant waaye sëriñ bi bis bi ñu jàpp ne ci la dund daa fekk bis boobu mu am ba noppi waaw kon am gi daa jiitu maanaam am ngi am ngi li mu bëgg ci boroomam uh-huh. jiitu na muy dem jiitu na muy dem wax na ko nag ci barab yu baree bari wax na ko ci barab yu bare baree yoo xam ne bu fekkente ne waxtu wi yaatu na tamay ñu ko it danañ ci mën a ak insha mm-hmm. allah rabbi mm-hmm. dëgg la dëgg la kon sëriñ bi Euh, ni ngi ko leerale am na solo ci baatub cant gi ni ko wàccuwaay li ko ko lislaam jox ci alxuraan ak sunna ak yonent yi alayhim salaatu wasalaam ni ñu ci doon waaye sëñ bi li tax mu tànn ko leeral nga ko cant ak solo si mu am moo tax sëriñ bi tànn na daal xëy na lii la mën a sante boroomam cant googu nag sëñ bi bi mu ko santaane nun war a sante maanaam nun war a màggale dañuy daje toog di xoolante wala lu ñu war a def loolu ñu sëriñ bi sant nu mu waxoon ne lañ koy santale boroomam ndax am na nu mu ko nu mu ko nu mu ko tënke waaw sëñ xam nga barab day màgg màggaay boo xam ne loo fa def ci lu baax dana dana ko ful ba dana wuuteeg boo ko defee woon feneen fudul foofa jamono day màgg màggaay koo xam ne ci def lu baax dana ko ful ba dana wuuteeg boo ko defoon ci jeneen jamono ju dul jooje loolu màkka doy na ci misaal ak weeru koor bu dee màkka Euh, dañuy wax ne pas-pasu def fa lu naqar yàlla képp boo ko amee yéene ji képp boo ko amee mhm. mbugal fekk la ci waaye boo fa jaamoo yàlla nag mhm. boo demee ca madinat munawwara nga jaamu fa yàlla mhm. ku ne xam na ne julli goo fa julli yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax nan da la ko suñ borom di fulal ci ay julli dana wuuteeg boo ko julli woon ci beneen barab bu dul booba weeru koor gis nga loo ci def ci lu baax dana wuuteeg boo ko defee ci weneen weer wu dul weeru koor loolu tax na ba yu baax yi moom yëpp ma nañu ko ca tàbbal waaye jëmmi màggal nag mhm. na ko sëñ bi doon defee te ñam àndaloon nettali ko mhm. loola moom nañ jàpp ne loola mooy la ci mënta ñàkk la jiitu mhm. muy bernde bernde yit xam naa wutalu ma sax promotion jaaykati xar yi waaye ni sëñ bu Bousso nettalee moom day mel ne xar dara wóor ko jiitu ci màggalu Tuubaa dëgg la ndax aw bay lañ indil sëriñ bi moo ne nañ ko yóbbu ci marché ba soppil ma ko am xar xar moomee moom la defar keroog ngir ñu màggale ko am na nag ay nettali yoo xam ne dañuy wax ne sëriñ bi neewoon na li tàmbale ci ginaar ba ci giléem kon bëy ngi ci biir nag a ngi ci biir e, yeneen yi ci des a ngi ci biir lépp lu ëpp ginaar rek yaa ngi ci biir kon bernde mooy la ci jiitu waaye nag ni màggal màgge ci sunu borom subhanahu wa taala ngir ki nga xam ne mooy borom màggal gi nam demeek yàlla lépp lu ci def ci lu baax dana wuteeg mu def ko ci beneen bis bu bokkut ak bis kon euh, nañ jàpp ne màggal gi du lu ñuy seetaan du ambiance du mbooloo mu dajaloo nii rek di folklore waaye ak jaamu yàlla la goo xam ne kenn ku nekk na fexe ba aw ñaqam di ci dem na fexe ba euh, lu mu xam ci lu baax mu jàng alxuraan muy jàng xasida muy euh, xettali mbokkum jullitam togg ay ñam wut ay naan lu mu xam ci lu baax loo xam ne rek ba dara xewut lu baax la loo xam ne ku ko def yàlla fay la su ko mënee def ci bisu màggali na ko def te yéene ci nag santale sëriñ bi boroomam su ci yéene sant santale sëriñ bi boroomam rek ma ngay sant waaye bernde yi moom mooy la ci jiitu bernde moom mooy la ci jiitu lu baax nag dañuy wax ne yu baax yi moom kenn mënu koo génne ci ne booy màggal boo jàngi alxuraan màggalu axaka ah, yi wax dëgg màggal nga waaye nag ndax jëmmi alxuraan diggam ak sëriñ bi moom kenn mënta wax lenn sëriñ bi mu di ca ñàkk doon dara mm-hmm. yu baax yii ñuy wax kenn mënta wax eh, sëriñ bi bisam yooyu di ca ñàkk doon dara waaye ginnaaw moom ba mu ko doon def nag dane bu ñëwatee koo xam ne sa mbég sama mbég la nag ma ci santale sa borom mm-hmm. nañ jiital bernde yam doon def moom mm-hmm. bu noppee nag lu ñu ci mën a dolli ci lu baax ñu dolli ko ci waaye daal eh, kenn wërta yamale bisub màggal ak bis ba ko jiitu ak bis ba ca topp war nañoo wuute waaw man de duma leen yamale moom li feeg maa ngi daal dund te ànd ak samam xel mm-hmm. ñaanuma yàlla yamale leen tey jàpp naa ne ku ku ku ku kuy borom xel doo leen yamale doo leen yamale waaw du leen yemale fa su ma leen yéene yemale incha allah incha allah jërëjëf Serigne Cheikhouna dafa mel ne xëy na waxtu yi moo ñu tànc ne bëggoon nañoo ñëw sax ci nag bind yi ñu war a jàng ci màggal ak yu mel noonu waaye xam ne waxtu yi moo ñu tànc dañ lay jox rek nga euh, tàggu mbokk téléspectateurs yi xëy na beneen jetaay bu ñu amaat dañ ko gën a yaatal ndax waxtaane màggal gi xajut ci benn plateau nii kese waaw xanaa kàddu gu mujj gi de mooy di la sant sëñ Abdoulahi ci ni nga tërale waxtaan wi euh, di sant ñi nga xam ne ñoom ñoo koy jàllale mm-hmm. di feddliwaat euh, cant ci daaira rawdu rayahin bi nga xam ne mooy taxawee jataay yi mm-hmm. di ñaan suñu borom rek jubluwaay bi jubluwaay bi nga xam ne mooy tisaare njàngaleem cheikhul xadim radiallahu anhu mm-hmm. ak it leeral li nga xam ne soxla nañ ko ci lu aju ci mbiram li wara a tisaaroo tisaaroo li ñu war xam ñu xam ko jubluwaay boobu yàlla na sunu borom def ñi nga xam ne ñu ngi jàkkaloo ñun déggee foofu te jariñoo ko noonu di ñaan nag bis bi ñu séentu ñu àgg ni ñu ko yéenee rek sunu borom defal ñu ñu amee ci nu kawe njortu ci barke Cheikhul Khadim jërëjëf jërëjëf Serigne Cheikhouna Mbacké Serigne Cheikhouna Bousso Cumbuleen Serigne Cheikhouna Bousso Cumbuleen xam naa Mbacké Mbacké moom danañ kii Serigne Cheikhouna Bousso Cumbuleen lañ àndaloon tey ci suñu jotaay bi ñu doon waxtaani tomb bu am solo muy solos màggal gi màggal gi ak solom dégg ngeen ni mu ko développé leeral na baatub màggal fi mu jógee ni ko sëriñ bi doon defee ak ñi mu ko doon santé taalibe yi mu nekkaloon euh, ba ci jamono yi baatu cant gi nga xam ne moom la santaane mooy ne nañ ko ko defal mooy lan ak wan wàccuwaay la am ci lislaam waxtaan waxtaan wu am solo woo xamante ni leeral na ñu bare bari ñi nga xam ne ñu ngi doon topp jàpp naa ne dinañ ci jariñu bu baax a baax a baax gën nañoo xam ci màggal gi loo xam ne xëy na xamuñu ko woon kon ñi ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di yëkkati foofu jataay bi di leen dig daje ci yeneen jataay incha allah ci jataay yi nga xam ne moom la ñuy waajale màggalu Touba gi ànd ko ak daairatu rawdu rayahin ak comité d'organisation bu màggal Touba wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo